allez-y. Voilà, donc euh, écoutez-moi par rapport à mes interpellations. C'est Yamoussa Kamara, journaliste extérieur. Je suis là. Ah, ma droite. Voilà, maître, euh, dama koy tënk plus rapidement. oui oui allez-y. ci wala nga teewlu justement question bi ci njëkk récemment euh, sur Seneweb TV le chroniqueur euh, Cheikh Bara Ndiaye bu Walf TV dafa defoon ne raison de bonne présence au tribunal. Mm. dañ li tax keroog nga teew tribunal waxoon na ko dëgg ko mais dafa fekk ni sa soxna ci boppam moo am ay jafe-jafe ak ko. Euh? bul sori bul sori. waaw kon da ngay tontu. sa Baara Ndiaye. waaw laaj ko Sonko ko fanal. continuer beneen. soo Baara Ndiaye feneen ba feneen Sonko bi soo Baara Ndiaye. bu dee jàng na alxuraan. kooku mooy seytaane ku mën fen. c'est le ku dàq fen ci Sénégal. continuer ba ci alors liggéey doo sama doo sama patron pour laaj ma li may liggéey ci foofu mooy sama liggéeyukaay la preuve bureau juge boobu am naa fa dossier yu bëri dossier Ousmane Sonko buñ ko waree on ak yeneen dossier am naa droit dama xool ca dossier xam nga son Sonko am na convocation normale ndax tey lay jàll ndax li ñu wax la lu dëgg parce que moom du ñoo bett kon la ma fa liggéey du ma ci wax dara sama liggéeyukaay bi yow doo sama kilifa pour ma la wax la may liggéey tribunal mais daal sama liggéeyukaay la xëyoon di liggéey bureau juge bi Ousmane Sonko ko midi lañ ko dugg naa fa avant midi ñëwuma gunt xataal ko waaye nag moomul tribunal bi tribunal salle yëpp amoon audience kenn muy Ousmane Sonko bu ñu ko tribunal du liggéey ku tekkiwul dara du tus ñëw tribunal ab yambar tax ñun kenn liggéey pour lan ku ñuy fay sur client yi ce sont nos clients qui nous payent on va refuser de pour les beaux yeux d'un inculpé de viol waaye wax ma leen waaye Euh, maître lettre lettre Ousmane Sonko bëgg brandir ay documents pour justifier yi mu wax mais yow boobu ba tey dégg